asalaamaaleykum mbokku internetu alxaybu tv yi ñu ngi leen di nuyu ku si nekk surtout ak sa sant di leen wax ne namm nañu leen lool la euh, présentement ñu ngi euh, si suñuy service seulement mënuñu woon ñàkk ñëw intervenir parce que sa a été demandé à l'unanimité mais ñu ngi nekk si liggéey bi wàccaguñu benn léegi nii waaye nag euh, Euh, Sénégal bu fekkente ne ni moom moo la soxla tu es obligé nga indi sa kàddu si par rapport ak li nga xamante ne ni moom moo xew si jamono ji euh, di maasawu nag ñëpp ñu nga xamante ne ni euh, jëlee nañ si ay gaañu gaañu ñi nga xamante ne ni seeni mbokk loru nañu ci li nga xamante ne ni moo xewoon ci fan yi nii si Sénégal ñu nit ñi yéex si jot lool ndax liggéey bi nga xamante ne ni ñun moom la def fii ci àll bi. Euh, des fois dañuy disjoncté disjoncté mooy maanaam doo xam ne xew si jamono parce que yoruñu courant boo xamante ne ni dañuy man di nekk toujours au diapason moo tax affaire bi am na ba euh, def ñaari fan après si laa koy door a yëg tey si je ne me pas man maa ngi si le 12 euh, mars su fekkente ne ni jumuma ci date bi en plus quoi bref. beaucoup d'internautes m'ont posé la question euh, nan laa def ba xamoon ne lii di si Ñakk bi la jëm parce que ñi nga xamante ne ni ñu ma doon suivre si Al Habiba TV depuis longtemps doon nañ ma dégg ma naan lii de xeeñ neexuma lii di xeeñ neexuma lii di Ram's Ñakk bi la jëm lii di xeeñ neexuma lii di si Ñakk bi la jëm donc ñu dégg ay sorties yu bari yoo xamante ne ni tamit ay boroomi xam-xam def nañ ko donc loolu damay wax toujours ne ajowul si xam-xam bu yàgg bu yaatu waaye nag mu ngi sukkandiku ci li nga xamante ne ni moom mooy euh, fi jamono toll ak li nga xamante ne ni moom la nit ñi di dund si jamono bi ñu toll ni ay boroom xam-xam yu bari wax si li ñu si waxoon mooy ni euh, tàkk dëkk bi si tàkk la jëm parce que tout simplement nit ñi dañu maaroon si tëju bi loolu mooy la chose principale maanaam ay nit boo leen tëjee di leen puus di leen puus dañuy fippu baatu Y'en a marre boo ko déggee rek euh, dafay duy dëgg boo maaree da ngay fippu da ngay gis nit ndeysaan muy ree ba si yàgg mu jékki alors euh, def benn affaire boo xamante ne danga naan kii de moo nekkoon fii xanaa sànq mais réewam boobu des fois am na loo xamante ne ni moom lay masqué moom mooy la population sénégalaise euh, les sénégalais toujours rek bu ñu maaree alors dafa am nu doxe donc li xew mu nekk loo xamante ne ni très franchement euh, gënaluñu mais nag c'est un mal nécessaire waaw euh, pour ressaisissement wala li nga xamante ne ni moom mooy récapitulation mun na nekk aussi lu nga xamante ne ni daf ñuy pousser à la réflexion parce que kuy wax naan mag ñi ñoo fi ñaan mënul nekk kooku da lay nax quoi xam nga mu ngi ne la fa la yonante bi tëdd sallallahu alayhi wa xam nga te lu nekk moom moo fay xew quoi ñu bañ di fàtte lu ni mel ñuy bañ di sukkandiku certes mag ñi seeni ñaan am na solo lool ci euh, Sénégal et puis euh, vraiment ñu ngi bénéficier wu aussi ci ñaan yooyu noonu quoi mais euh, bi nga xamante ne ni li am am na nit ñi dañu jóg xam nga ak nit ñu tedd ñi fi tëdd yëpp. Euh, révolté wu ne yàq def loo xamante ne nii vraiment da xalaat ne laayen bi sañu ko woon def wala murit bi sañu ko woon def wala xaadir bi sañu ko woon def wala ñaseen bi sañu ko a def wala tijaan bi wala sañu ko woon a def wala canaba canaba bi sañu ko woon a def wala wala wala wala mais ñoom ñëpp ku si nekk fàtte si ñooñu ñëpp teg leen fële après nag bi nga xamante ne ni mooy li la la xari euh, nga jóg dox ngir loolu noonu euh, damay waxaat rek benn si lu gàtt loo xamante ne nii aussi. dañ koy fàtte ñu bañ di koy fàtte la première de nuit la première nuit de Ousmane Sonko au palais waxuma en prison mais au palais euh, sera pire que xam celle du président présent mooy Macky Sall moi je suis parce que ñun ñëpp sax la jeunesse ay sonkiste ñu mais dama la bëgg wax ne la Sonko mënul changer dara si vie bu mun na ko def si ay discours wax ko mais bés bu nekkoon président li ñuy dund moom mooy gën a lu ñu si jamono yi euh, Macky Sall présentement tout simplement parce que euh, jamono buy dox système di dox lekk war askan wa naan war leen te liggéey amul euh, su fekkente ne ni da nga jël askan woowu noonu jiite leen faaw fi am da nga koy seet rek. si jur bi yow mi nga xamante ne ni yaa nekk si kër gi da ngay jur doom joo xamante ne ni day nekk day am fitu gaynde doom joo xamante ne day nekk njombat doom joo xamante ne ni day nekk doom joo xamante ne ainsi de suite ñoo xamante ne seen yoon nekkul si dara léegi nag bu fekkante ne ni problème dafa am na doom yooyu noonu ku si nekk bu wanee jikkoom nag ni Sénégal mel bii passé noonu lay mel ñu yor jikko xaj def def yi xaj ñu yor jikko gaynde def yi ko gaynde ah moo xam ndax yow da nga leen doon dundalee whatever you want li nga xalaat lépp ne doon nga leen ko defal mais loolu bu boobaa du ñu ko gis parce que manqué nañu li nga xamante ne ni moom lañ doon jot si tous les temps donc euh, président bu la promettre ne la jox liggéey daf lay nax beneen nag si discours bi nga xamante ne ni mooy discours son excellence monsieur Macky Sall le président tous les sénégalais ma force ñaari affaire benn bu positif ak benn boo xamante ne ni je pense que c'est très négatif bu positif bi mooy euh, euh, wax na lu am solo nee na euh, am réew rigueur daf koy laaj effectivement yow sa kër boo ko yoree te fekk yow da nga yolomal <laughs> kër gi bu boobaa ku nekk nu ko neex lay doxale donc foofu dama si ànd ak président bi bu baax a baax a baax président bi xaw ma reeñam si ñaati at la toll fi mu nekk ne yaakaar naa 2012 la jëloon pouvoir bi donc 2012 ak léegi su fekkee nekkul si 9 ans donc li mu ngi si huit ans. léegi su fekkente ne changé wul dara wala yi mu bëggoon a changé yëpp changé wu ko wala jeunesse bi leen ba tey ji au dernier moment ñu ne 2024 si lay jeexal mu ne day changé waat loolu tamit yeneen wax la yoo xamante ne ne ay naxasaxanang la donc euh, pour vous rek ne euh, nos gouvernants ñi nga xamante ne ni ñoo ñu diriger nu les Africains nekkuñu ñoom dañ ñu gën a muus. il faut que ñu xam ne ñoo président nekkuñu dañu am xam-xam ñoo tax ñoom ñu nekk ay président loolu il faut que ñun ñu bàyyi xel ci loolu di xam ne ñoom ay carte la hmm? comme man ma ñëw ne damay poser candidature ngeen wóolu ma jël seen carte jox ma ko te sama njàngoo sorewul loolu donc nekkul ne président bi moom moo gën a muus askan wi yëpp dafay juum dafay def ay erreur ngeen di bañ di fàtte par parloo aussi du tere nga wax li nga xamante ne ni moom mooy dëgg ji Ousmane Sonko je suis un Sonko sonkiste comme je l'ai dit mais on a besoin de savoir ce qui s'est passé ak Adji Sarr donc euh, révolte bi nit ñi def manifestation jëlaat ko delloo ko këram mais on a besoin xam nga moom mu taxaw aji Sarr taxaw ñu xam euh, lan moo xew très exactement en tout cas man Ousmane ñu ngi ko di loolu ça m'intéresse très lii daal mooy nekk li nga xamante ne ni euh, newoon naa mënuma ko ñàkk euh, waxal sama askan fàttali ne ne la première nuit de Ousmane Sonko au palais si jamais mu nekk président de la République du soppi dara ci moment yi nga xamante ne ni moom la Macky Sall nekk di liggéey actuellement nii si Sénégal jàppale da ku nekk en service di liggéey soutenir de travail am mooy nekk di waxtaan ak yéen kon lu may tëje toujours sama émission mooy nañu farlu ci di liggéey pour lu ñu amal suñu bopp daan doole ngir amal suñu bopp ñu bañ di xaar dara si li nga xamante ne ni moom mooy suñu góor parce que mënuñu ñu ko jox amuñu ñoom luñ ñu ko jox luñ ñu jox kon ñu jox ko seen njaboot quoi day sooxee sax pour ñu dajale ñu teg si njaboot gi nga xamante ne nii ñoom moom la ñu yilif ñu war leen a jox muy xam ay nit yoo xamante ne dañ leen doon wutal ay carte si yeneen i dëkk ñu war a jox ñëpp ay neexal si si si partage du gâteau bi maanaam réew mi ñoom mënuñu loolu quoi donc euh, Sonko bu yéegee tamit dóor yi ñu koy dóor tey jii nii maa ngi wax bu ñu demee ba deux mille vingt quatre incha allahu rabi mu nekk président de la république si durant mandat bi yëpp. Sonko jafe-jafe yi ngay jànkuwanteel tey jii nii yaa promettoon Sénégalais yi ne leen di nga leen defal lii defal leen lii defal leen lii voilà te loolu dara nekk si parce que mënoo ko quoi mënul nekk quoi donc boo xësee bu dugg si affaire présidence nekk président yaa ngi gën indi sa jafe sa bopp ay jafe-jafe parce que li nga digloon te ak askan bi mënoo ko quoi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Ah, beneen président bu mu mën a doon à kii di ñëwaat <laughs> il va recevoir les mêmes coups.